ñu ngi leen di fay di leen delloo nuyoo bi di ñaan yàlla boole ñu yiw boole ñu teraanga boole ñu jàmm ci dara ji yonent bi sallallahu allah oustaz ñu ngi lay massawaat coono di la jaajëfalaat ci disponibilité bi waaye saa su ne bu réew mi yëngoo mu mel na say kàddu dana nekk kàddu yoo xam ne euh, gars yi dañ koy bëgg ñëpp di ko xaar wax fa dëgg yàlla ndaw ñi di la déglu waaye tamit njiit ñi nga xam ne ñoo ne ci bopp réew mi di la déglu fan yi oustaz macha allah ku ne xam na ne Ousmane Sonko euh, li nga xam ne moo dossier médical am dafa fuité wane ni kat usman Sonko mi ngi ci tawat gu méttee métti waaye ñi nga xam ne ñoo ko jàpp di euh, nguur gi ñoom lànk na ni duñu bàyyi ba tax na am na ñu ragal ni Ousmane Sonko mën na des ci seeni loxo tey ban appréciation nga am ci loolu. man daal li ma ciy wax na président Macky. Mm-hmm. yolomal loxo da ko jéggal ndax itam li ko yàlla defal ku ko yàlla defal dara waratu laa naqari jël réew mu toll nii nga jiiti leen par force bu leen neexee yaay seen njiit bu leen naqari yaay seen njiit nga jël Ousmane Sonko téye ko ci kaso bi wax dëgg yàlla bam feebar ba toll fii na ko baal nag mm-hmm. na ko baal mu génn dem ci ay njabootam si sinon am na foo xam ne bu fa yeggee day ëpp li bu ëppee dana doy waar waaw bu desee seen loxo dana doy waar kon nag léegi na ko na ko baal rek Macky daal moom bu waxee mu baal ko bu waxee rek ñu baal ko waaw ci loxoom la ne ci léppam la ne na ko jéggal na ko jéggal na ko jéggal ngir yàlla rek waaw parce bu ko jéggal lu baax parce que ki nga xam ne dem nañ ba xam ni léegi sonn te bu amu bu ñu amul chance mu des seen loxo léegi bu des seen loxo lu ñuy wax foofu laay du fa am mm-hmm. yu boobaa itam mën naa indi problème bu rëy mm-hmm. naa indi problème bu rëy waaw boo xam ne bul xalaat fu muy yemi mm-hmm. kon nag na ko teel a jéggal léegi ñu bàyyi ko moo gën man de loolu laa koy ñaan président ma Macky daal li ma koy ñaan mooy na ko jéggal li ma koy ñaan mooy na jéggal Ousmane Sonko li ma koy ñaan mooy na jéggal Sonko ñu bàyyi ko. Macky nee na moom du jàppe yoon mooy jàppe. mooy jàppe dëgg la moom du jàppe yoon mooy jàppe waaye sañ naa ñaan yoon <laughs> sañ naa ñaan yoon sañ na ne yoon nag yéen a ko jàpp waaye may leen ma ngeen baal ko ndax feebaram fi mu tolloo tax yoon bàyyi ko moom sañu la jàppe ti du jàppe yoon mooy jàppe yoon mooy àtte yoon nag bu àttee te àtte ba ëpp nga xam ne léegi kat ki ki ñu àtte lii moo ko dal lii ko dal lii ko dal sañ naa ñaan moom yi ñi àtte ne leen baal leen ko ni ma ko ñaanee na ko baal noonu la leen di ñaanee ne baal leen ko ñu baal ko am ñu ñoo xam ne xëy na ay farandoo Macky la ñu jàpp ni bu fekkee loolu la day yomb ku ñu jàpp nga génne dossier médical ni da nga feebar ñu bàyyi la loolu day bëgg a yomb quand même waaw baax ñoom ñoom seen yéene lañ wax waaye nañ bàyyi xel na jaam lañ sonk jaam la ñaari jaam yu daje leen ci kanam borom dinañ bàyyi xel na des na beneen jàppin budul bii des na beneen jàppin budul bii mooy bu yàlla seen digganteek yàlla ñun ñëpp danañ dee kenn du wa inna rabbaka la bil misaal yàlla nee na maa ne ci bunt bi ci bi kenn mënu koo tëb ñëppay dee léegi nag buñ demee ba ci kanam yàlla nag foofa foofa rëcc fekk na jëf wees mm-hmm. waaw loolu wax rek la nañ ko baal médical ku ku génn sa kayitu médical ñu baal la loolu du wax kiñ ne dafa feebar feebaram jéggi na dayoo nañ ko baal na ko baal mag Macky daal na ko baal sinon bu ci dara amee coow li ci kawam la jëm coow li ci kawam la jëm du dem ci siis bi du dem fenn ci kawam la jëm kon nag na ko baal ngir yàlla rek moo gën waaw ni ma ko ñaanee noonu la leen di ñaanee rek jeex na <laughs> waaw. léegi bu ko bu ko bu ko yi jàpp ni ñoom ñi far ak yi Sonko war a bokk ci élection yi waaye ñi far Sonko jàpp ni ñoom te gëm ko Sonko bu bokku ci yi élection du am ndax ñoom gëm nañ ni cinquième président du Sénégal Ousmane Sonko lay doon. waaw loolu moom beneen affaire la waaw affaire la bu bokkul ci son bu Sonko bokkul yi élection du am benn affaire na ñaan ba mu génn rek. nañ ñaan Macky baal ko ma euh, mu génn rek suñ ñaanee ba mu génn ñu doog a wax loolu parce que euh, Sonko du bu bokkul ci élection élection du am loolu du wax kenn si élection du am euh, gannaaw suus bi ci Casamance àtte na ko ba wax ne war naa mën a mën nañ ko delloo ay dossier war naa mën a bokk ci élection yi ci suus bi suusu Sénégal la suus bi suusu président la ah, ah nañ ko nañ nañ seetaan nag mbir mi waaw nañ seetaan mbir mi ndax kon nag nañ ko bàyyi mhm. mu bokk lu bokk lu muy jëriñ su bokkee wàññiwul dara su bokkul wàññiwul dara ti mu bokk amul problème na bokk rek ba xam mhm. parce que yàlla moo yor lépp yàlla yor lépp ti yàlla lu mu dogal loolay am mhm. damaa yaakaar nit ñi dañoo bëgg génne yàlla ci mbir yi suñ ci bëggee génne yàlla nag dañ ko ci génne waaye yàlla daal buñ ko ci boolee jiital ko xam ne lu am mooma président Macky xam ne yàllaa ko fal bu wér xam na ni mu yàllaa ko fal ndax ci jamono yooyu eh, am nañu Moustapha Niass mi nekk ci moom eh, moom lañ yaakaaroon mm. Tanor mi nekk ci moom moom lañ yaakaaroon mm. Idrissa mi dem ci moom génnaat moom lañ yaakaaroon mm. ñoo ñëpp ñoom lañ yaakaaroon ne ñooy doon président far Macky doon président na xam ne yàllaa fa jaar yàllaa fa jaar mu sant yàlla gërëm yàlla ci jaamu yàlla bi na sant yàlla gërëm yàlla ci jaamu yàlla bi waaw jaam bi baal ko du ko wàññi dara moom pare na ci élection ku ku toog yaa xam waaye nag bu fekkee ne dañoo bëgg a doxalee noo noo xam ne day indi coow ci réew mi du baax parce que am na noo xam ne buñ ko defee ne indi coow ci réew mi te coow amul solo coow dëgg réer buñ coow buñ coowee rek dëgg day dal réer kon nag nañ ko waxtaanee. waxtaanee ko daal moo koy moo koy defee nañ ko waxtaanee buñ ko waxtaanee dinañ juboo buñ jubooyee jeex na kenn ku ne dem ci la nga dem kenn ku ne wuuti rek yàlla tànn président bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàlla tànn kiy jiite ba dem ci mbo mbiram ku la yomin woo fi seen yàllaa ngi ci yeneen affaire hmm. nekkatul ci lii hmm. waaw kii doon président pare na ci moom moom borom bi Eh, kii ki koy doon pare na ci kooku jeex na kooku ñun ñoo ci des rek di coow ak nangam nangam diw yi di kii la Macky Sall tànn kii la diw tànn kii diw tànn kii mooy doon président waay yàlla moom pare na ci lépp lépp la pare ti eh, ti nag bu rëddee nga far mu rëddaan nga far dalay rey ba pare rëdd sa kaw ku koy far du ko far oustaz euh, ma xaw a rek euh, dinaa maa ngi te ñaare ku ñuy euh, waaw nañ ko jéggal kaso bi nañ ko jéggal kaso bi parce que fa mu ne dañ ko faa téye. Mm-hmm. buñ ko baalul du fa génn. nañ ko baal loola. nañ ko baal fa mu fa mu dugg. nañ ko fa baal mu génn. Mm-hmm. waxu ma ne moo tooñ waxu ma ne dañ koo tooñ dama ne. Mm-hmm. nañ ko baal fa mu dugg mu génn. su génnee jeex na nañ ko baaree mu génn parce que gis nga yenn yi la waaj waxoon ba ñuy def élection yi dafa euh, oto seen projet bi moo këpp bi mu këppoo am ñu waat ci kawam am ku ñëw ne jël leen ci kaw bàyyi ci suuf mu ne ko xanaa dañ laa warul <laughs> ah, waaw <laughs> xanaa dañ laa warul la waroon doo wax loolu ah, mais loolu la ñiy wax ñëpp dañ leen tëju rek buñ leen tëjul duñ wax loolu ñiy wax ñëpp dañ leen tëjul rek mm-hmm. waaye buñ leen tëjul mm-hmm. ci kaso bi duñ wax loolu mm-hmm. waaw nañ nañ nañ nañ nañ baale Sénégal ni ñëpp jikko ju baax jikko baale baax na parce que baale dafa am solo waaw waaye bañ a baale amul solo nañ baale rek waaw nañ baale rek waaw macha allah nan nan nan nan baale Oustaz léegi Sonko ñëpp dañuy ragal ni bu bokkee ci élection yi dix heures yëf mën na féetee ko te moom xam xamle na ni kat bu toogee ci bopp réew mi dana toppante képp ku mu njort ni jël nga alal réew est-ce que du ñoom loolu la ñuy ragal. ah xanaa dañ koo jël xanaa dañ koo jël ku jël alal réew mi ragal lool waaye ku jël kay doo ragal lool ku jël alal mi doo ragal waaye nag wóob nga tëb te néew sàccoo ah kooku nag yaa xam waaw waaye daal ku jël alal réew mi yow yaa xam ku jël alal réew mi yaa xam waaye daal li am solo. neuf heures ak dix heures ak onze heures ak bu ko Macky mu eh, ko bu ko Sonko jëlee baax na waaye dama la wax ne mbir mi ci loxo yàlla yàlla moo xam kii jël président bi ak ki ko dul jël yàlla moo xam ki mu teg ku mu fi dul teg tuutil mulka man tasha yàlla jox nguur ku ko neex ti comme xas désigné ne kii laay jox na coow lu mu bëri bëri ko fay ne manoo ci dara parce que yàlla kenn du wañaar loxoom yàlla kenn du damm loxoom yàlla mooy def lu ko neex kon nag nañ nañ ko bàyyi rek amul solo wallahi amul solo président Macky na sant yàlla bu baax bay dukkat na sant yàlla bu baax bay dukkat na yàlla bu baax bay dukkat ndax li ko yàlla defal ku mu ko defal war ngaa sant yàlla ci moom rek la karaama yàlla génne hmm. karaama yàlla dëgg kéemaanu yàlla ci Macky la génne ndax ñi ñu foogoon ni ñuy jiite ñëpp hmm. kenn jiitewu hmm. kenn jiitewu ci te ñëpp ñu mujj nañ nekk njabootam far ah <laughs> loo ci man maam li muy doxalee fan yi mooy bëggaat seulement euh, li di APR nekkaat ci niveau bi fii ba deux mille trente cinq parce que boo xoolee Amadou Ba moom la ñuy koy waxee pour nekk candidat ñoom jàpp na ñu ci réew waaw loolu loolu moom ku ne war na koo jàpp hmm. ñoom war nañ koo jàpp opposition war nañ ko jàpp waaye yàlla moom li mu jàpp xam nga est-ce que xam jàpp mm-hmm. yàlla xam nga li jàpp mm-hmm. yàlla xamoo lu mu jàpp mm-hmm. xamoo lu jàpp Macky Sall la fi nekk wala parti ma fi ne wala keneen ma fi ne ana ana ana ana PS PS jàppoon kenn ah. ana ñu jógee nañ ba dugg ci Macky ah. ana PDS ah. waaye yow bàyyi leen loolu yàllaa fi ne bàyyi leen ak yàlla lépp mu jeex parce que li ngay bëgg yàlla na la ko yàlla bëggale mu baax bu la ko yàlla bëggalewul du sotti parce que ku am na exemple PDS am na exemple PS am na exemple Macky Sall mën naa am exemple loolu la waaw naa tànn nag moo xam bu tànnee Amadou Ba moo xam buñ ko falee baax na buñ ko falul baax na waaye daal kii jiite yàlla rek xam yàlla tànn na ko ba pare nee na diw yi jiite jeex na na ñëpp topp ci kaw bu pare na ci moom mu nga ca le ci leneen néew ci yi ñu ne nekku ci parce que xamul mooy nekk ci lii waaye ko xam doo nekk ci lii yàlla moom xam na lépp moo tax euh, am amul problème waa koy ba tey ñu ci làmmiñu mu ni manifestation bu ñu sàkk woon tey plan Moscou bu Ndakaaru pour jàppale ñi nga xamante ne euh, loolu moo ah, baax na parce que parce que la tax mu aaye ko moo xam Macky Sall la tax mu aaye loolu moo ko xam parce que dañuy euh, jàppale waa Palestine euh, marche loolu mu aaye ko moo ko xam moom nag la tax mu aaye ko man xaw ma ko du ci mën a wax bu ma ko xamoon nag doog cee a wax waaye moom mi ko moom mi jiite réew mi gis ne loolu doxul mu tere ko loolu dara nekku ci nañ ko bàyyi teg ko ci suuf moo gën waaw buñ fippu buñ def dara moom daal lu mu wax nañ ko def rek ndax li mu dese bëriwul mm-hmm. li mu dese bariwul te itam nag ku desewul lu bëri nag dañ lay neexal nag war mm-hmm. pour nga mën a dem waaw li dese bëriwul léegi mu léegi Palestine suñu mbokk julli jàppale ne fii di dox da jàppale la jàppale ku ñuy rey ku ñuy rey di leen bombarde ñuy dee ñu di leen jàppale dox ay yuuxoo coow loolu la leen jàppale ne leen nañ fa dem kay. man nañoo dem di man nañoo dem nañ fa dem suñ demee hmm. jàppale leen ñu rey leen ah waaw nañ dem jàppale leen fii lañu fi laal yonent bi sallallahu alayhi wa hmm. ñu def marche dem lobby li si xaw ma. Hmm. daja fa di sànni ay juróomi dërëm ak ay sànni ay nangam. ñu toog kenn wax ci réew mi bàyyi yonent bi lu mu war wax wax ci réew mi yaay yonent bi lu mu war a wax kenn deful dara loolu ay caaxaan la rek ay caaxaan la rek ci loolu lañu waroon a wax waaw ki wax ci bàyyi yonent bi wax ci yaay yonent bi kooku lañ waroon a wax waaw lu ñuy wax. moom Macky dem na fi euh, ci Charlie Hebdo yoo xamante ni tubaab bi ñoo waaw yooyu ko bëgg naan ay dem na leen ko tere su gisee yoon wu tax mu tere leen ko na leen ko tere su gisul yoon wu tax mu tere leen ko nag moo xam moo mën na leen baal waaye daal réew mi fi mu toll ay marche yooyu doxu fi ay ay marche doxul ci réew mi réew mi fi mu toll réew jàmm lay wut jàmm lañ fi soxla jàmm lañ fi jàmm lañ fi soxla ku fi soxlawul jàmm rek amoo responsabilité waaye ku am responsabilité rek soxla la nga fi jàmm waaw parce que réew mi jàmm fi baax bu jàmm amul dara du am waaw dara du baax kon nag jàmm waxtaanee ko ba mu baax ñu indi jàmm xanaa xanaa bala nga bala ngaa laax lekk nga laax jaay bala ngaa laax jaay nga laax lekk bala ngaa laax lekk jaay nga laax xanaa bala ñu wax wax suñu réew mi dañ wax suñu réew mi nu ñu àndee nu ñu nekkee benn du ñu ko bëgg mu mu bañ ko voilà c'est ça bu ñu nekkoon benn loolu daam am waaye nekkuñu benn te xam na am na lu mu xam moom président Macky lu ñu xamul parce que ñoom li leen ump bariwul yàllaay joxe nguur yàllaay xamle nguur li leen ump bëriwul lay tax ñuy tere xam nañu ko waaw ñoom dara ump leen yàlla leen jox nguur yàlla bu la joxe nguur dalay xamal lu bëri waaw la ñuy xam na duñ ko xam ñun ñoom mën ñoo xam secret boo xam ne duñ ko xam moo tax yàlla mooy joxe nguur résultat bi quatre yi ci dafa mel bàyyi loolu bàyyi loolu bàyyi man def yooyu ay yëg man su ma yëgee su su ma yëgee sax du ma ñëw hmm. su ma yëgee du ma ñëw bu ma yëgul du ma ñëw bi ñuy def tournée ñëw nañ ba sama kër hmm. Makhtar ci boppam hmm. ak ñamu àndal ay élimaan ñëw nañ ba sama kër toog nañ fa waxtaan nañu wax lañ bëgg ca daari sëñ Babacar lañ ma fekk kon xam naa li ñuy dox waaye dama wax ni nañ bàyyi rek parce que coow baaxul te gis nga kuy sumb coow da nga xamul coow kuy indi ay da nga xamul fa ay du yem ay dafa am foo xam ne du ay du yem ci bopp borom laa taxsabanna lazina zalamu ah minkum ah <laughs> du yem ci bopp borom de ah. macha allah mu mel ne oustaz fan yi réew mi nag wax fa dëgg yàlla euh, xam naa ni ñàkkul ci jeune ñun ñii donc rek a fi des waaye jeunes yëpp fi mu toll ñoo ngi ci Nicaragua geeg mbëkk meeg wax fa dëgg yàlla ñii des nañ ci géej gi ni ñi xëy na àgg nañ macha allah oustaz tey euh, mu mel na phénomène boo xam ni xaw naa doy war nag di ndee ba réew ay ndawam bëgguñu ko ba mu jaral leen yéeg ci gaal di dem mm. tey euh, loo jàngatee loolu ak tamit est-ce que du li may ñaan mooy yàlla na yàlla yërëm ñi ci jóge yàlla na yërëm képp ko naan xaru la da dangaa bokkul ca ña dee bañ àtte la àtte xaru da nga xam ne kon xaru xaru ak fipp du benn ki fippu ne damay uuti bokk la ki ne damay dee damay dee ak damay uuti du benn damay dee ak damay uuti du benn kii ne damay dee man bëggatuma ci dund bi dara kookoo xaru waaye kii ne damay wuuti pour dund koo koy koo koy daa fippu gannaaw sa réew nag gisoo fi loo <laughs> loo tabaarkàlla gisoo fi loo xam man léegi léeg ma di ko ki yoon bi ñuy aw fi ñu nu mu tuddeew hmm. foofu booy dañ leen dàq rek dañ leen di tëbal di leen dàq ci ndaamaraas rek la ñuy jaay ndaamaraas rek waaw sérieux boo fa demee ba mënoo faa jaay nga mel ni étranger ñu lay tëbal ngay daw kon nga seeti meneen réew mbir mi du xaru fippu la rek nañ leen jëli buñ leen mënee wutal liggéey ñu wutal leen liggéey suñ leen mënta wutal liggéey ñu bàyyi leen ah loolu rek la parce que wutal leen liggéey parce que xale yi mënoon leen dar dara mm-hmm. waaraateeg mm-hmm. yàlla nee naag yonent bi nee dañ la waaye yow dañ naan waaye na dox fële mu naan yàlla nee na yooyu yëpp gëmuñu ko. Mm-hmm. ñoom lu ñu gëm daal mooy nañu dem wuuti. suñu amee am nañu rëcc nag. Mm-hmm. am nañu rëcc ñu ngay am. Mm-hmm. am ay teraanga di indi seen mbokk yi. voilà waaye nañ def ndànk rek suñ leen indee. ci man leen wutal liggéey moo gën waaye jël leen ba pare indi leen wutal leen liggéey dañuy démarrer démarrer rek xale senegal xam nga leen. xale yi dañoo dëgër bopp xale yi dañoo dëgër bopp xale yi dañoo dëgër bopp lu ñu xas matt danañ ko dagg li ci tane mooy ñu wutal leen liggéey ni leen wutal liggéey rek waajur yi am nañ ci responsabilité baan waajur waajur yi waajur di soññ seen doom am na ñuy jaay seen kër jox seen doom am na ñuy jaay seen terrain jox seen doom am na ñuy jël seen takkaay jaay ko am na ñuy jël seen natt di ko joxe. waaw ah, ah, natt dem. <laughs> loolu bari na fi. parce que dañoo seet ne réew mi ci génnee dem benn réew moo tane waaw moo tane du du saxaluma nag pour ñu dem déedéet man moom loolu bëgguma ko waaye dama wax ni suñ leen téye fii wuutal leen liggéey moo gën suñ leen mënta wuutal liggéey nañ leen bàyyi ah waaw ku ci dee baax na ku ci deewul baax na. waaw waaye fipp xaruwuñu de xaru amu fi fippoo fi am xaru amu fi fippoo am xaru am waaw. Euh, am na ay fanweeri jigéen ay jigéen tamit bokkoon ci gaal gi. jigéen nag góor yëpp yam dañuy wut bi góor di wut jigéen di wut du fi jigéen ñaa ngi demal ci marché marché marché HLM nga xool. Mm-hmm. marché HLM biti biti yëfa nga ngande seetal demal nga seet fa Zeynabu du kuré fu jigéen ñi la bokk mhm. dinga ngandum boutique la fa yore mhm. waaw ah jigéen ñi kay dañuy wut mhm. suñu wuutee fii amuñu ñu wuute fee jigéen ñëpp jigéen ak góor yam jamono bii ñu ne ñëppay jamono bii ñu ne góor ñi amuñ lu satisfaire jigéen ñi il faut jigéen ñi wuuti lu ñu satisfaire seen bopp loolu moo ci ne waaye góor ñi moom amuñu lu ñu jox góor jigéen ñi parce que lañ soxla yëpp mënuñ leen ko jox bi ci des amuñu jëkkër amuñu jëkkër amuñu dara kay dañu wuti. lu ñu takk xanaa bala ngaa takk am loo takkee. ah. si gars yi xam nga bala ngaa takk am loo takkee jabar kay da ngay mbëkk boo demee boo amee la nga mbëkk ba mu daanu nga ñëw na takk jabar waaw. ñooñu ñoo ko tey quand xale yu ndaw di nam wala feraguñu nga buub leen yóbbaale leen ci gaal gi tamit est risque. déedéet ñu dañoo amul ñu ñu dénk seen doom yi dañoo amul ku ñu dénk seen doom yi suñu ku ñu dénk seen doom yi dénk leen ko dem waaye kuñ ko jox nga bañ ndax kuy dem te xamoo dana ñëw wala du ñëw xamoo kañ lay ñëw wala kañ la du ñëw kooku yël doomam dafay dafay jafe ci yow. kon nag eh, jël xale yi amuñ ñu ko jox kon yóbbaale leen yow xam xanaa xamu leen métti métti jamono eh, waru ngeen koo xam billaahi métti métti bi jamono bi métti ku am xaalis mënoo ko xam jamono bii ni mu taree mm-hmm. ni mu mettee mm-hmm. ni mu garaawee kenn xamu ko gis nga ñiy dem ñëpp ñiy dem ñépp laa wax mm-hmm. kenn ku ci ne amoo sago parce que ku ci ne da ngaa jaaxle hmm. ku ci ne amoo foo jëm hmm. ku ci ne amoo ku la dimbale jigéen ñi amatuñ càmmi ñu leen jox hmm. amatuñ ko suñu amoon càmmi ñu leen jox wax ak ñoom jox leen waaye amuñu càmmi ñu leen jox waaye léegi nu ñuy def wuutee fi des wuuti rek wuuti rek a fi des waaye yow ba ngay dem xam wuyu ma ba ngay déglu ma ba ngay dem xamoo ne da nga ñàkk sa bakkan xamoo ko woon parce que boo xamoo ne danga nga ñàkk sa bakkan da ngay xaru ah? kon di dem kum wóoroo ne dangay ngay ñàkk sa mm-hmm. bakken doo dem mm-hmm. kon da ngay xaru waaye wóoru la yow yow yow ngay dem pour uuti ne damay am suma amee defar sama papa lii sama yaay lii defar lii defar laa far dem des ci géej mm-hmm. kii ne suma amee defar sama papa lii defar sama yaay lii defar sama euh, sœur lii dem yàlla dimbale la nga yegg wala gis nga kii dee ci géej gi bu demuloon dana dee laa laa budda ki dee ci géej gi mhm. su demuloon it dana dee mhm. laa taxsabanna alladina zalamu minkum xaasa bu leen yaakaar ne ay ki koy taal dana yem ci moom rek mhm. waaw dana dem ci ñeneen waaye bu dee yiw itam boo ko dana dem ci ñeneen yiw ak ay ay bu ci tàkk dana am ku mu làmb ku mu làmb koo xam ne eh, làmb làmb ti làmb na ko gis nga nañu bàyyi xel yàlla bu baax a baax nañu bàyyi xel yàlla ku sa dat jote nga dem ku sa dat jot nga dem mhm. ku sa dat mhm. jotul mënoo fexe ba dem ci gaal gi wala boo demee ci gaal gi mënoo fexe ba dee fa kenn du dee mhm. waaye ku sa dat jot nag bu jotee nga dee loolu la démb journal wax nañ ci ministère ministre des affaires étrangères bu Espagne ñu ci réew mi di ak Macky Sall pour euh, xool nu nu indee gone yi ñu ni teg leen ci avion léegi am ñu ni papier bu Macky d'accord gone yi ñëw bu d'accord gone yi toog léegi tey lan ngay yox Macky yow tey boo ko doon conseillé mu d'accord mu d'accord laa koy conseillé mu d'accord d'accord ñëw fa ah, d'accord pour ñu toog ci réew ma nga naan waa yow d'accord pour ñu toog fa parce que ki ñëw di waxtaan ak yow am naa yaakaar ne boo ko ñaanee dana la may mm-hmm. kon bu ko ñaanee ne ko ñëw nañ ba pare may leen may leen fa parce que fii xëy na liggéey amu fi wala liggéey demeewul noonu ndax réew mi ñu ndóol wala réew mi dañoo ñàkk nangam waxtaan waxtaan waxtaan day indi déggoo waaw day day bu ko defee nag bo gis nga boo amee ñaare waxal waxal ko ñàkk du la yomb de boo ragalul yàlla piir hmm. boo amee soo ragalul yàlla piir waxal ko ñàkk du la yomb doo mën a nekk avocat hmm. doo mën a nekk avocat am ki nga mën a nekk avocat am mooy ku mel ni yow waaye boo ragalul yàlla piir defoo sax xel mi yàlla doo mën a nekk avocat am ku ñàkk xale yi dañoo sonn na waxtaan ak moom su waxtaanee ak ñoom ñu mën leen a baal bàyyi ci réew mu baax na su fekkee ne dem nañ mënuñ faa bàyyi ñu ñëw ah luñ fay defati réewu jàmbur kat boo ca nekkee ci neexoo borom réew ma sooy bo fabu mm-hmm. soo li ngay daj fii ngay daj fee rek ah waaw fabu rek waa dëkk bi dox na sax wa ak doxul yépp liggéey am na fi mm-hmm. liggéey bi fi am lañ bëggul nag mm-hmm. liggéey am na fi bi fi am liñ bëggul waaye ku jaay ngooñ am nga liggéey ku jaay ñax am nga liggéey ku jaay dugub dem jëndi saalum dugub am nga liggéey ah? ku jaay ngooñ am nga liggéey ku jaay gattax am nga liggéey liggéey am na bëri na fi yomb na fi kon ni ñu bàyyi ñu liggéey suñ leen suñ mënta liggéey loolu nag seen réew suñ demee ci réew jàmbur liggéey fa leneen loo xam ne bu doon seen réew duñ ko nangu loolu itam xam nga bitim réew lim tane moo di kenn mënu laa jot wala ku la jotit aha nga koy wax doo am loo ko jox bu dee fii nag loo liggéey mu dem fii loo liggéey mu dem waaw kenn mënu fee dajale dara bu dee fële nag boo dajalee fukki dërëm ñaar fukki dërëm bu yàggee mu bëri bu dee fii nag doo mën a dajale dara loo am ñu ne la indi loo am ñu ne indi kër gi xanaa gisoo nga nekk fii am xaalis sa yaram daw nga joxe waaye fële sa yaram daw du du jéem a daw sax du jéem a daw sax <laughs> ba ngay ba ngay ba koy takk nga naan lan du jéem a daw sax. naam sax yaa ngi am ko ay que amoo kii euh, itam dara dara amoo këyit vingt cinq am nga vingt cinq am nga ko fa ah. am fa trente ans ba nga am fa mille ans mm-hmm. gannaaw yaa ngi liggéey rek baax na soo amee la nga niseroon nga def ko mooy dimbali sa papa ak sa yaay xaalis bi duñ waxuñ ne du ñëw xaalis bi dana ñëw yow yaa dul ñëw wala boo ñëwee dootoo demaat waaw moom loolu la soo ñëwee dootoo demaat xaalis bi moom duñ dana ñëw mais yow doo ñëw waaw ko lijjanti da nga ñëw incha allah moom daal nañ dem jàpp liggéey gannaaw ko fay liggéey danga am dara baax na suñ dul am nag ñu toog fii ci Sénégal liggéey a ngi fii jaay matt liggéey la jaay ngooñ liggéey la jaay gattax liggéey la jaay dugub liggéey la liggéey bi du fi jeex waaw dafa tolloog nag ba bëgg bëggu ko am ngoog nag man maa ngi nii di jaay radi damay jaay radi di jaay ndox di jaay crème di jaay glace lépp dama koy jaay kii moo laayal kii am na ñu fa ñëw di ko jël ci yéen waaw mais dama koy dama koy dama dama koy jaay damay jaay crème dërëm mbuusu ndox dërëm glace fukki dërëm muy fukk ak ñeent am naa fukk ak ñeent di ci diggante bi ah waaye yow bàyyi nga naan courant bi noo koy fay sama courant ki miin nga naan lan miin ñu tegal man duma man duma dox ci yooyu man yàq laa ñemewul parce que dama xamul lu yàllay def ëllëg waaye ñeme naa dépenser waaye ñemewumaa yàq dama lay wax ne rek lu nit jàpp ti yàqoo ko yàlla fekk la ci boo jàppee ci rajo benn meer nag da koo déggoon dem jën jël congélateur am euh, ubbi di jaay ñu coupé courant ba mu ne nii Iran Ndaw ma ko teg <laughs> di naan dama ma teg lii la ndax moom moo nekk fi day jaay radi day jaay ndox mu set day jaay glace ba ma dugg ci coupé nañ sama courant xaw ma fu ma jëm fi mu toll fu mu jëm fu dul fay ko ti bàyyi na ko fay ti bàyyi rek moo gën ci moom waaw waaye dama laa wax rek ne réew dangay wax la ngay liggéey dana tax ku ko bëgguloon liggéey liggéey ko xam na est-ce que xam nga ne moroom ndaw si ñu ngi jaay ndox ñu ngi jaay ndox ci yoon yoonu yoonu Dakar wi mm. ñu ngi jaay ndox ci are mm. ndox bi lu muy jar seetal lool léegi eh, mbuusu ndox bi ñu jënd ko jaay ko fukki dërëm mbuusu bu ne fukki dërëm mbuusu bu fukki dërëm mm. léegi-léegi ma def ko waaw waaye nag toujours ndax aw ma waaw ba tey ci actualité bi xam naa sax li ñu jaaxal ndax xam naa ne yaa ngi def te xepp dafa am benn film boo xamante ni mu ngi am naam sax xëy na sax doo ko seetaan mais dafa am ku ci wax fan yi muy Mamata Jamra comme ñu defee chaque fois ci ak suñu mën nañ boo amee ñu gis suñu bi ay mbir yoo xamante ni mbiru doy waar la maanaam bu demee ba jigéen ak góor amatuñu naan Mame Matar wax na ci mais ba léegi mbir mi gars yi ñu ngi leen di yokk di wane ay image yoo xamante ni image yu xaw a doy waar la di yàq xale yi ñoo jàngatee ñoo xam nga defe naa ne télé boo gis jëndul boppam indi ci boppam ci kër gi télé yaa ko jënd am déet mhm. yaa ko indi sa kër mhm. am déet mhm. yaa koy taal am déet say doom a koy seetaan am déet mm. kon yaa def li waaye kenn ku ne bu moytu woon télé boobu jëndoo télé taaloo ko sa kër kon loolu lu ci am waaye ku ne yaa ngi mm-hmm. am na chaîne yu gën a garaaw yu Pape Matar yu gën a garaaw xamul am loo xam ne bu ko xamoon mm. dana yuuxu yu gën a garaaw yoo xam ne ci ci kër yi la ne xale yaa ngi koy dugal seen biiri néeg léegi sax dem nañ ba téléphone yi jël na ko a ngay gis góor guy sëy jigéen nii ñu wane ko waaye góor ak jigéen di sëy xale bu jigéen boo gis mu gaaw tëdd rek mu nga ci ah? bu gaaw a tëdd rek mu maa la wax lii damay tëdd mu nga ci ah waaye itam xale yu jigéen ñee koy def ak xale yu góor yi nga naan xale yu jigéen xale bu góor ak xale bu jigéen a koy def parce que ñoom loolu seen bëgg ba mag ñi mag ñi yooyu ñu leen dëkk mag ñi dañoo dañoo dañoo am na leneen lu ñu xalaat lu loolu mag ñi ay dépense lañu xalaat euh, courant bi ndox mi téléphone yi loolu lañu xalaat mais xalaatuñu affaire u caaxaan yi waaye xale jigéen yi ak xale góor yi nga xam ne dara waru leen ñooy xalaat yooyu xam nga ni yor sa téléphone euh, jàpp ci loo xam ne ci xaw ma nu ñu ko da xaw ma TikTok bi ñu génnee la lu salte yoo xam ne ah, ngay seetaan ah, naan laa ilaha li nii lii nekk am na laa ilaha illallah auzu billahi mina sheytaani rajim bu subaa nga demaat ah. yow min moo tax waaye yow min auzu billahi mina sheytaani rajim suba nga demaat nga naan doo sàppe koy koy ñu koy a jar li nga xamante ni euh, lu bon moo gën a jar lu baax nga ceeb hmm. ceeb hmm. sàngara gën a foor mbiskit hmm. cigarette gën a foor lu baax lu gis ci àdduna lu bon ak gën a cher te lu bon lañuy jënd mbiskit ak tàngal ak guraak yooyu yëpp dafa dafa dafa oyof hmm. waaye yi ci des dafa cher hmm. même ba ci ba ci ba ci xeesal sax xeesal hmm. xeesal dafa cher waaw ñu koy jënd xam nañ ko dem nañ ba léegi amatul ñu jëndee xeesal mais xeesal bi dafa cher ku ci gis muy xeesal na nga am faru am xaalis mu di la xeesalloo amee faru am nag mu lay xeesalloo baax na waaye xeesal moom baax baaxul ci baaxul ci benn jamono parce que gis naa ku mas a xeesal ci waawoon Euh, buñ ko opéré di ko ñaw dafa xët dafa mujj dee billaahi wallaahi tallaahi dafa mujj dee waaw dañ ko doon ñaw affaire bi xët mhm. ñu ñëw muy xët ba mujj dee lool loolu lu ko jar mhm. pour taar rek jaru ko mhm. pour nga xees jaru ko mas ngaa gis tubaab buy ñuulal tubaab bi di ñuulal du ñuulal lu tax wutuñ luy ñuulal seen yaram yi ñun ñu wut luy xeesal suñu yaram yi tubaab yi du ñu wut luy ñuulal seen yaram yi waaye ñun ñu ngi wut luy xeesal suñu yaram yi pour ñu toppandoo leen yaram wu xees lu muy jëriñ yow ni la yàlla bindee moo dàq sibxatallaahi wa man ne minallaahi sibxa kan moo gën a rafet ni yàlla def yàlla def la peinture mm. peinture yàlla moo gën a rafet peinture tubaab bi dana am foo xam ne doo fa yàgg xam nga xeesal am na foo xam ne doo ko xeesal mukk mukk mukk mukk parce que foofu doo fa yegg day ñuul kon nag bàyyi ko ni ko yàlla defee woon moo gën ah ah oui oui bàyyi ko ni ko yàlla defee mu gën parce que yàlla koo ñuulal ñuulal fépp ba ki ki ñuul day ñuul fépp ki xees day xeesal fépp waaye ki xeesal am na fu muy yem a xeesala mm-hmm. am na fu muy yem de bu ko bu ko rombee rek àdduna tukki waaw. est-ce jëf yu ni mel jotul état jóg taxaw ci pied ferme ndax tamit mi ngi divertir xale yi mi ngi yàq xale yi donte waajur yi war na am nañ ci contrôle waaye tamit ñu bañ ko exposé ci milieu public bi quand même. waaye ci dara dara dara dara mënu ko xam nga lu ñu wax ngeen naan état ku nekk yaa war a doon sa état wu bopp xale yi koy def amuñu parent seen parent yi nañ ci jël ay responsabilité mais état lu ci mag Sall man lu ci étam bu ci doon wax sax ñu waaye bu ñu bu ñu rey am na lu ñu fi war a wax hmm. waxuñu loolu hmm. mais kenn ku ne ni koy def duñ xar hmm. duñ bëy duñ nag ay nit lañu am nañu ay wuy jur ne leen seen wuy jur yi artu waaw ne leen ko tere parce que am nañu ay wuy jur wuy jur wu ci ne am mën nga koo tere waaye bàyyi leen ba mu si fii ñu naan ni ci etaa bi wax état lu muy wax am na ñu koy def ñu kenn xamul di am na ñu kenn xamul ñi làqatu ëpp fuuf ñu ne fàng mhm. ñi làqatu ëpp fuuf mhm. ñi làqatu caay-caay mhm. ñu ëpp ñu ne fan waaw man gis naa benn chaîne boo xam ne seen boobu maara day taali ay sénégalais góor ak jigéen nii lañuy ñuy summikoo ci baa ngi fii ci réew mi nii la ñuy summi ko di sëy chaîne baa ngi ci réew mi chaîne boo xam ne maara day taali boo ko xoolee dangay ngay da ngay yéemu ci yàlla ne nekk nit mën naa mel ni nit ba nit dem nañ ba ba ba nekk bàyyi ma di ndax dem nañ ba jigéen ñi di jël ay mbott ak ay sindax ay yu kenn xamul di ko dugal seen awra yeeg eh, loolu loolu mooy alko loolu mooy dem naa dema dema dem ba xamatuma fu ma jëm nag fii laa yem nag mbott mii nag euh, foofu laay mbott nag laay jël mu mu yor affaire yi mhm. xam nga ne mbott ci awra <laughs> bu mënoon a màtt bu la nga dee léegi ba aka mënoon a màtt rek ba màtt la macha allah kon di ko jaajëfal bu baax a baax moom oustaz Iran Ndao bu fekkee keneen amul beneen laaj rek ay ci kon oustaz kàddu gu mu jóge lan la kàddu gu mujj gi de mooy président na baal Macky Sall baal kii rek Sonko na ko baal rek bu mu waxu kenn kenn kenn kenn na ko baal lu ci des ni ci bitim réew xale yi daw ña fa dem ba yegg na leen bàyyi ñu toog ñi demagul na leen wutal liggéey ñu am lu ñu jàpp toog xale yi itam nañu teey bañ di bërëx bërëxi bañ di yàkkamti mm. parce que bu ñu yàkkamtee mm. yàq lay indi mm. ndax nañu teey gannaaw dig nañu leen liggéey boobu ah, baax na buñ ci jàppee rek mu dem moom daal nañ dimbalante rek président daal nañ dimbalante ñu ni parent yi itam nañ ko dimbali kenn ku ne da ngay jàpp ci sa doom mm-hmm. wax ci jàppale ko ju ko defee moom itam mu jàpp ci li mu am mm-hmm. liggéey bi mu baax waaw loolu mooy liggéey bi aw parents yi nañ ci jàpp moom mu jàpp ci réew mi jàpp ci ku ne jàpp ci li nga yor ah, mu jëm kanam buñ ko deful du jëm kanam waaw koy